Euh, jëm si ki nga xam ne moo di Juan euh, ginnaaw euh, ba nga ko indee fii mi nag hmm, kenn xamul exactement fan la dadi di aw après première vague deuxième vague assistant si troisième vague d'arrestation dans l'affaire Juan Branco ma ni kon benn ko mbër boo xam ni itam di ki nga xam ne moo di usine doole jàpp nañ ko ak ben contrôleur des impôts et domaines ma ni kon mbër boobu nag daal di uyoo turu ki nga xam ne moo justement Alioune Diomaye Diouf ñu gën ko xamee si usine doole ak ki nga xam ne moo di Mamadou Diop mu daal nekk contrôleur des impôts et domaines ñoom ñëpp nag defare nañ leen devant euh, le parquet euh, en même temps aussi euh, ki n'a xam que moo di ñooguloo ak benn li nga que moo proche maire bu Sangalkam en tout cas nous mettons placé nañ leen déjà li nga xam que moo di li nga que moo mandat de dépôt et que defare defare nañ leen si kanam yoon ak wàllu yoonal tof aussi ki n'a xam que moo di Sane le maire des Parcelles Assainies aussi moom tamit jëlee nañ ko si li nga xam que modi di prison bi yóbbu ko si cité urbaine daal di koy déglu daal di koy delloowaat fa nga xam it mooy zaanu ko kaso bi at euh, il faut ki nga xam que modi di Juan Branco il a été libéré mais quand même bëri nag ñuy ñëwee di leen daal di jàpp tegoon na sax si japp li ñuy jam peut-être pour garde à vue mais ils sont allés beaucoup plus euh, li nga xam que modi profond muy daal li nga xam que modi di déféré devant li nga xam que modi les juridictions lu nu mel ban xalaat nga ci am euh, ginaaw ba nga daal di jàppee ni ginaaw ba daal libéré Juan Branco képp ki nga xam ne itam laal nga ci da nga waroon am li nga xam ne mooy liberté parce que nga daal di jàpp ni euh, dafa ruslu jëm si état bu Sénégal daal di topp ay doomam bàyyi doomu jàmbur. mais je l'ai toujours dit nee naa la di coup bi nga bàyyee Juan Branco man gisuma nga continuer di jàpp koo xam te ne laalee na si Juan Branco. Hmm. l'affaire aurait dû mu am sens bu fekkee Juan Branco il est toujours dans les prisons sénégalaises. Hmm. dans ce cas mën nga traquer ku takkee ci affaire bi yëpp jàpp ko mais yow bàyyi nga Juan Branco mu ñibbi léegi yow say dom ngay jël taroxal lem ci mm. l'affaire là au nom de quoi mm. au nom de quoi dëkk day fonk ay doomu réewu moom moo tax ngay gis xale di jël gaal yi di préférer mourir dans les mers mm. parce que ñoom dañoo jàpp ni ils ont un sentiment de désespoir c'est-à-dire que dañoo jàpp ni nguur gi faalewu leen dañuy jàpp ni faalewuñu len ñu ñuy jiite faalewuñu len moo tax da ngay gis xale yi dañ lay ne sax jël jël jël gaal gi moo ma gënal da ngay gis ko am te ne dem na ñu andiwaat ko mu ne la su ma gisaatee damay demaat lu tout ça boo ko analyser man dama jàpp ni nguur gi def nañu ay jàngat ci loolu mais li ma gis nii c'est comme si ñoom faalewuñu loolu. Hmm. ay ku la ne man su ma gisaatee kii ne damay demaat il a un sentiment de désespoir dans ce pays parce que dafa gis ni ñu ñuy jiite. ñom duñ protéger wul protéger wuñu ay doomu réewam c'est ça le problème il faut que nga protéger say doomu réew l'affaire Juan Branco ginaaw bay nga Juan Branco man gisuma ñi ngay japp ñi say doom di len toroxal hmm. man solo man dañoo wara a ñooñu man lolu moy sama conviction waxuma ni def nañu wala defuñu dama ne di ku nga bàyyi Juan Branco man gisuma nga continuer japp ñoo xamante ne laalee nañ ci affaire bi quand même nañ waxante dëgg nañ waxante dëgg. on a libéré Ousmane Sonko aussi on a libéré dama ju on a on a on l'a libéré on a. on a libéré aussi l'avocat ok. on a libéré l'avocat maintenant libéré nga ñooñu ci continue encore di japp ñu ante supposant ci affaire même affaire bàyyi nga kii mu ñibi réewam nga bàyyi l'avocat nga continuer di jàpp encore ci la même affaire mais amul sens donc dans da dans cas non amul sens euh, euh, vider carrément dossier donc si fekkee yow nga ñooñu c'est toujours l'affaire Juan Branco rappelle l'avocat. pourquoi le procureur ne fait pas appel comme il il a toujours il a toujours euh, l'habitude de le faire na appel pour avocat bi ñu ko parce que toujours c'est l'affaire Juan Branco avocat bu ñu bàyyi nonu liberté provisoire le procureur def appel ñu jappat ko. Parce que si on continue de traquer sur l'affaire là, nous un avocat, liberté provisoire à Juan Branco, à mon sens. À sens. Il faut que mon procureur, vous faites toujours la même affaire. Nous avons appel, nous avons l'avocat, nous avons l'avocat qui lui, à Juan Branco, nous avons appel. C'est ça le feu. Hmm. Il faut qu'on ait clémence. Il faut que nous djégalions. Je suis d'accord. Je suis d'accord. ñu jàpp ko mais il faut il faut tamit il faut pas jàpp bu bari bii tamit moom mooy créer psychose ñu ñi di wax il faut que ñu am clémence jégale jëllalee da ngay jégal say askan hmm. bul jël ay yàtt di leen dóor moo tax ngay gis xale yi di gàddaay nii ne na non ay yoon kara nan na ko ni ko ni ko la Nicaragua hmm. ay yoon Nicaragua lañu jël moo ñu gënal kii na la yoon Espagne géej gi la jël kii na la damay gàddaay Mali kii ne la damay gàddaay xaw ma fenn yooyu yëpp Sénégal la xewee mais pourquoi ça reste jusqu'à quelques mois des élections pour yëpp les les incidents là commencent de de façon successive. Hmm. pourquoi xewuloon depuis les deux règnes du président de la République ñu xaar juste à quelques mois des élections on a partout des mots foo lamb mu ngi métti. ay xale yi daw fee përë pëccëxoo bi ñii daw utali fee ñii daw utali Nicaragua ñii daw la jeunesse sénégalaise di Tassaro. ñiy daw uti euh, Sénégal échoué euh, comme adresse, Cap Vert 100 et quelques nous ñu rapatrier en Sénégal tout ça c'est la jeunesse sénégalaise man on man compris nous ñu organisé organiser des points de presse nous wax par rapport à ça c'est ça l'importance surtout mais c'est pas surtout c'est pas des avocats qui ont di wax ay Ousmane Sonko dañ koy jàpp dañ koy mu on n'attend pas à ça des immeubles qui s'effondrent des euh, cypresses ay d'idées partout comme des mouches pourquoi on n'organise pas l'état du Sénégal doit organiser des points de presse voilà deux ministres trois ministres ñu taxaw di revenir sur la situation pourquoi ils le font pas pourquoi ils le font pas ay avocats taxaw au moment que ay famille ñu ngi jooy ay immeubles di effondré sont di Cap Vert ni di dee di comme des mouches yéen ngeen toog ay avocat partie civile way on va se consulter des partis civils pour lutter contre la même personne te il n'est pas en liberté il est en prison Ousmane Sonko ndey wax ni Ousmane Sonko il n'est pas en liberté il est en prison est-ce que de quoi a l'importance ñu jël seen temps boobu yëpp invité ay presse Talk. mais est-ce que Japon aussi c'est la guerre communicationnelle. waruñu toog ci guerre communication Comment nga fan la à war moment bi nekk ci askan Sénégal parce que fo lamb mu les gens meurent partout on doit on se poser ces questions là pourquoi les gens meurent partout dans ce pays actuellement à quelques mois des élections Ni di la mer Méditerranée ni di le Cap Vert ni ñi ñu ne la ni ñi ñii dee nañu ñii ñooy rescapé yi immeuble di partout c'est l'urgence Dieu parle avec nous yalla mu ngi wax ak ñun indirectement. Hmm. ku nekk war na tiit jóg ci sa actuellement c'est voilà les mots yàlla buy wax ak am askan le da ngeen war a muus delloo si seen ci yàlla. parce que foofu lañ toll. yàlla mu ngi wax ak ñun yàlla mu ngi wax ak Sénégal. mais ñoom il continue toujours politique. politique rek politique rek. c'est comme un métier. ñu jàpp politique def ko ay métier comme métier. alors.

xaw a daal di nga xam nekk moo di tànkam lu loolu la Pape Alé daal di yéeki exactement te itam daal di jàpp ni euh, seen yooyu sax peut être ñi daal di xaar benn réponse daal di jógee si président Macky Sall waaye ba tey gis gisaguñu ko exactement euh, ma ni kon euh, sëñ Saliou Mbacke aussi bokk na ñuy ñëkk a réagir en na jëm si kaw ki na xam ne moo di Ousmane Sonko mu daal di jàpp ni itam jamono ji président Macky Sall amul kenn si yaakaar excepté ki na xam ne moo di doomam di ki na xam ne moo di Aliou Sall ba moo doon dox li nga xam ne moo di entre sëñ bi ak moom. amoko do li nga xam nekk moo di jottali Alain aussi daal di jàpp ni téléphone sax peut-être euh président Macky Sall mu ko daal di déggante ki nga xam nekk moo di sëñ Cheikh Saliou Mbacké mu dal japp ni bokk na sa nga xam ni itam peut-être ñu doon euh, intervenir jëm ci li nga xam nekk moo libération bu Ousmane Sonko arfan nak na daal di gisee yooyu de révélation euh, là ou peut-être ñu daal di jàpp ni itam suñu serigne nii ba ñu leen jox li nga xam nekk moo di ak ben ruus bi nga xam ni itam man foofu wan leen li ko ma dal di def foofu laay tàmbalee fokk ñu jox suñu serigne ñuy war parce que euh, Sénégal dafa am numu bindo bindoo. Hmm. Sëñ c'est pas le Sénégal d'aujourd'hui qu'on parle. il faut commencer quand on arrive wax ci Sénégal da ngay commencer depuis Sénégal bu démb. Hmm. fi dañoo am Sénégal dafa am numu bindo ñun yag nañu fonctionner avec les tariha les guides religieux. Hmm. ñom ñoy suñu référence. Si on Sénégal lu mu am beaucoup de pays amuñu ko la question des mœurs ñun dañoo am ay guide religieux da ngay dem femm fo xamantene buñ la tuddee Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul da ngay bàyyi. Hmm. wala da ngay daanu lèr. wala buñ la tuddee maam Maodo Malik Sy da ngay daanu lèr. wala buñ la tuddee maam Cheikh Ibrahima Niass da ngay daanu lèr. buñ la tuddee maam Limaamu Laay hmm. bukkunta ci ainsi ak kenen. Mm. la force spirituelle et religieuse du Sénégal il faut pas le bafouer il faut respecter les guides religieux c'est vrai que ngour l'état du Sénégal L'a laalewul Avec euh, euh, euh, les confréries religieux. Mm. c'est-à-dire que ce c'est-à-dire que l'état est indépendante de ses actions indépendant de ses actions par rapport aussi les actions des guides religieux. Mais attention, attention, les guides religieux sont la vitrine de ce pays, sont les premiers magistrats, hmm. Ce sont les premiers conseillers de ce pays. Fi, ku bu am Touba ak c'est ça la réalité c'est ça la vraie histoire de ce pays Nous avons un problème. képp ku bëgg a fàllu wala nga bëgg a am kii ni da ngay xoolal gis mu sol gram buuba dem Touba toog ak si Touba utu audience wala Tiwaawan wala feneen ak feneen caméra yi braqué ci moom gars yi di jël ay photo di ko muy fësal ni que moom dafa am cofeel ci ci ci ci ci ci ci ci confrérie bi wala ci lislaam mais pourquoi quand il s'agit des décisions yoo xamante ne jit bi ñaan na la ko nga bañ donc c'est opposant c'est diamétralement opposé par rapport yow li ngay def ak li nga bëgg def. ok yow bo amé li nga mat ñu ñaan la nga bañ mais yow suba bo amé jafe-jafe nga am soxla nga wutali ñom ñu recevoir la nga wax say bëgg-bëgg ñu accepter la ko ñom buñ la ñaanee yow do leen ko nangul au nom de quoi au nom de quoi li ma lay wax ni du lu bees. ñom ñoo def mais est ce que amna ay prérogatives pour nangu bobu dañ ñaan. mais bien sûr euh, là où on parle la séparation des pouvoirs. non Touba c'est pas un pouvoir. de l'état non là où on parle la séparation des pouvoirs digganteeg exécutif ak judiciaire est ce que li ñaan Macky Sall Macky Sall am prérogative pour may leen ko. mais bien sûr mais bien sûr di mom mom ñom buñu amé soxla dañuy dem Touba wala dañuy yoni délégation à Touba. wala à Tivaouane déggoo li sañ-sañ nangoo. pouvoir judiciaire mané suis juste justice di président mec sa di exécutif bi est-ce que am na sañ-sañu génnee Ousmane Sonko. mané pouvoir exécutif. ak pouvoir judiciaire mënoo mané Il y a une indépendance sen diganté mané la y a une indépendance ñuy primaire ba comment l'université c'est faux si c'est comme ça le le président de la République ne peut pas être chef suprême de la magistrature mënul nak qui organise les élections c'est pas le ministre de l'intérieur pourquoi warul a une personne indépendante maintenir xamante ne laalewu le procureur qui est émanant de la justice sénégalaise kan moo koy nommé kan ils son patron il ngeen bëgg a gëmloo sénégalais ni que ñaari pouvoir yooyu amul amul pouvoir. <laughs> écoutez arrêtez il faut arrêter lolu primaire lañ koy jàngale amul. jërëjëf ñun ñëpp ñun ñëpp nangu naa maak yow mu ainsi que keneen suñuy doom yi ñoo xam te ñoom ñoo nekk primaire voilà le beau mensonge bu ñuy jàng depuis primaire. c'est clair ñun ñëpp fa la ñuy jaar mais boo demee ba màgg dem université commencé ràññee ci ngay xam ni kon yow luñ la doon jàngalee yëpp c'est faux amul ni que les pouvoirs sont indépendants le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire sont indépendants ki benn alors que le président de la République est le chef suprême de la magistrature moi, mooy nommé magistrat les juges là ñan ñoo leen di nommé ah vous continuez de dire oui c'est seen Touba c'est Mountakha Mbake Mbake Bassir mënul ñaan njëkk le président de la République pour mu un détenu ngeen le loolu mënul am wala pour mu euh, classer un dossier ngeen le loolu mënul am. bàyyi leen manipulation bi bàyyi leen caaxan loolu yàgg na fi am depuis ci ñoom Serigne Fallou bu cest à boo jàngee l'histoire du Sénégal moo moo tax ma ne la Sénégal ne commence pas d'aujourd'hui ne date pas d'aujourd'hui hmm. da ngay gëstu ñun dañuy gëstu depuis à l'université da ngay dem di di di jàng l'histoire ñun bala ay ay Iba l'histoire générale du Sénégal bala ñu constituer di dem euh, leur nouvel mécanisme euh, di dem di recueillir ay des éléments pour constituer l'histoire du Sénégal bind ko balaa boobu boo xamante le président de la République Macky Sall initié na ko ba ñom euh, l'éminent commandeur professeur ibader Der ba ñu commencer liguey bobu ñun jang nañu bu yagg ci daara yi jang nañu partout def ay gëstu ci l'histoire du Sénégal hmm mais musul Takaliko avec la religion les guides religieux là ils se sont toujours impliqués qui font le fonctionnement de ce pays loolu ku la aujourd'hui vous voulez faire croire aux gens ni que non c'est Mountakha Mbake, musul mënul le président de la République pour abandonner des projets wala pour me libérer Ousmane Sonko wala keneen ak keneen ngeen bëgg ngeen bëgg a gëmloo ko sénégalais bëgg a gëmloo ngeen gëmloo ko sénégalais pour ñoom accepter ko l'eau amul kay buñ la en tant que président de la PEM ndax mën nga ko def wala quand le le président de la PEM. donc président tey su ko non c'est ça le fait. mais quand on dit que l'affaire est euh, ci loxo yoon. mooy dafa dossier bi su ay bu bu ay parce que il faut mu jaar cassation. jaar appel jaar jaar même mom tamit mo taxaw ne len mom bu gisee ni dossier bi day andi gàllankoor wala jiite naa Sénégal da siy teg coñcoñ moom moo wax wala waxoko ko moko wax wala waxoko ko vous avez deux versions des faits deux versions des faits lañu am aujourd'hui il nous parle ni que affaire bi mu ngi ci loxo yoon c'est-à-dire que moom mënuma ci dara foo ko yoon def ay poursuites yep ba paré mom loolu la wax. mom hmm. mo waxat ni que dossier bi mom bu gisee ni liggéey bi da ciy tegu chonchom. moom moo ko wax wala waxuko ok c'est clair. maintenant ban version ngay jël légui ban version ngay jël légui conc bi est-ce que euh, su nekkee su yegsee ci niveau mu teg ci conc. yow léegi da nga bëgg ne egg ci niveau mom mu nek le chef suprême de la magistrature <laughs> avant de ñu jàpp Ousmane Sonko le président de la République je me rappelle mom mo tok je crois, un, un, un 31 décembre, voilà, fête de la, de, de, de la nation. Je crois les deux là, 31 décembre. Voilà, avant ñuy jàpp une autorité boo xamante autorité la quand informer le ministre de l'intérieur le ministre de le ministre de la justice le ministre de la justice informé kan affaire bi remonté ba ci moom. Madiaba Diagne lu bëri mu ngi koy rëcc. mais loolu laa la wax. Madiaba Diagne dañuy remonté l'affaire ñom ñep sen patron c'est le président de la République mom mooy le chef suprême de la magistrature. bu le ministre de l'intérieur. non écoutez man waxuma ay wax ma jambal yow déglu ma man dama nek di wax la les faits. il est informé quand même il est man je parle de ce que le président de la République lu mu wax. dañuy informer qui qui informer qui qui informer qui légui mom bu egg ci mom mom bu gisee ni dossier bi buñ ko appliquer dina andi ki ni mom da ci tek tionc mom day ki ni pour ñu abandonner les poursuites les poursuites c'est ça le patron la hiérarchie man je ne parle pas de ma Diagne parce que mom musuma gëm Madiambal Diagne musuma ko gëm mën wax fi suba ba mom musuma duma ma gëm benn mot bu mu génn bu mu génnee ci jëmenam donc ne me parle pas de Madiambal Diagne je parle je, suis en train d'expliquer comment le président de la paix le, mois par rapport à euh, euh, l'affaire de ne autorité voilà autorité comment on, informe la hiérarchie c'est comme ça mais quand tu, me parles de Madiambal Diagne c'est pour me divertir c'est pour me divertir parce que je ne parle pas de Madiambal Diagne il n'est pas crédible tout comme c'est Yerim ne c'est pas des journalistes crédibles voilà fofu lay waxee moto tax ma ne la tey sëñ Mountakha Mbacké Bachir mën naa ñaan njëkk ci le président de la république pour mu abandonner wala pour mu guenné nit ci kasso mu daf ko. mais sëñ Cheikh Saliou mbake aussi ñu né àddu woon na si jëm euh, pas mal aussi ci ay klif voilà ñu aussi àddu woon na si daal di jëm ci kaw ki nga xam ne que moo Ousmane Sonko est-ce que concrètement Arfan jotuñu daal di amal ay médiation Sonko nangu waxtaan ak ki nga xam ne président Macky Sall autour d'une table euh, peut-être texte souffle li nga xam ne itam ne wax que ni je vais pas discuter euh, sur le dos du peuple. non man xam man j'ai toujours prôné. Mm. pour le dialogue.